Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production euh, et suivre avec nous l'actualité nationale internationale. ci sëriñ bi bëgg a jàmm ku nekk dina la ko fekk ndaxte loolu rek a mën a maye jàmm. daan sàmm. Hmm. dafa daan am bu jëkk ci ñu jëkk ñi ñu daan ñu daan bëgg xaar di di composé ay tur di ci tàkk di ci am ne ba léegi même bu fekkee ni ni hmm. fulli nañ leen. Hmm. ñu indil ñu juróom-ñeent fukki tur yi ak juróom-ñeent ñu wóolu leen na ci muy tur yu set yu sell di tur yi suñu borom jënn aju tewu leen fax na ñu indil ñu jëmu jëm te mooy li nga wax rek mooy jërëjëf sëñ boo gën lépp moo synthétiser lépp. jéggal lépp moo ko synthétiser lépp lépp mu ngi ci mooy kon lépp lépp lépp lépp mu ngi ci jërëjëf sëñ marke moom yàlla nu ne wane woon na ko ca maam Adama ba ci Nooyi ba ci yoon ci yàlla Ibrahima ba ci Seyduna Isa alayhi salaatu wasalaam ba ci gër ñëpp kuy Seyduna Muhammad nu ne wane na ko na ci aajo waaye fii mu ne ci Serigne Touba la a gaaw man talsam bu ne mos naa ko nu ne sama sac bi bu ma ko ubbee léegi kurus a ngi ci junni la dama ciy barkeelu ndax dama koy bañ a tàggoo moom ndax daa am mbir mu ci xew lu ne indi naa ko tur mm. lu ne lu kii ñu am. moom ko dara. mooy daj dëpp gi. dëgg la bëgg Serigne Touba yi lépp. ndeysaan yàlla ci Serigne Touba la gën a gaawee. yàlla. billahi loolu la. yàlla yàlla ci Serigne Touba la gaawee. yàlla lu mu lu mu lu mu mën a muñ ci lu mu lu mu mën lu mu mën a muñ bu fekkee am na jëm lu mu mën a muñ ci moom. Hmm. ndax lu ne yàlla ngi koy dégg fu ne ñoo ngi ko koy dër. Hmm. lu ne ñoo ngi ko koy waxal. amut ak nangam ak nangam ak nangam waaye lu ne mën na ko muñ ba mu ne sëriñ bi. kay bu bëggee gis mbégam. jaaral ci sëriñ bi. boo bëggee gis safaan bi jaaral ci sëriñ bi. xëy na xëy na. boo noyyi lee sëriñ bi jot léppam. di jëf la ngay wax waaye boo xalaatee rek. dajeeg ndaw te man dëgg la fas na. waaw man man lii sa yëg. man lii yëpp la xam nga man. dëgg la waaye noonu rek la bi la gaal. fii mu ne gis ko ci zaahir dañ ko noppee gis. ba àddina di tukki. loolu mu wax ci laaj kuy sa borom. dañ lay laaj nga xam nga amul. laay hmm. laxin la moom góor rek. waaw ah, ak noo demee moom. loolu rek la ñu laaj. ah. ah, ah. boo <laughs> dugg boo ko xamul am loolu naka. waaw bu ma dugg. dañ lay laaj ay damaa la bëgg ay damaa naan dem naa loolu la loolu loolu la. ma des ko ma des ko

ba lépp xamul dara ba jëmmam ba lépp ne dal na sëriñ sëriñ ko lépp hmm. te nag sëriñ du jeel ci amin ci ñaar jeel de te jomb na jox dara koo ko jóge fi mu di ko roppi wala mu di ko économiser wala mu koy recycler hmm. li mu yor du jeex hmm. oh, bu fa dem am ci lool mi ngi mi ngi ni gàññ na waaw waaw egg fa naka jafe soli Serigne Touba yi lépp. egg fa soriwaay bi te tey tolluwaay bu jafe la. ndeysaan. tolluwaay bu jafe jafe jafe jafe la. Mm-hmm. egg fa nag moo jafe. bàyyi ko ma nekk lii ah, la waaw dëgg noonu. lan lay laaj wax Cheikh Sane. comment toog. ñëpp toog mu laaj benn téere ñu indi ko. ñu laaj benn téere ñu indi ko bay. ñu ko tuuti benn xasit. ñu nodd timis. ci mm-hmm. jumaa ji. ba noppi eh, di daal mu téye fekk maa ngi toog fii ji lu mel ni fee ji li toog moom toog indiwaan fi nii Cheikh Béthio toog na rek ñëpp toog ni nodd bi daal mu fekk si ma woon mu ñu naa toog ci suuf mu indiwaan nodd timis gi daal moom mu jóg dugg ci biir ñoom Maxtaar Jaxate ma naa leen jiiti timis ma leen ñu moom ay jullit di koy jiiti. waaw ah. ndax ñun ñëpp fi nekk. Ah. mu ne ma kaay <laughs> ma jiite ma jiitee man lay def. mbaa mu ñëwaat ne ma ana fi ma la toogloo. mënumaa timis mënut a jot te sama xel bi mënut lool. tey jëfi wàll yi jarul nekkee interprète. Hmm? lu yomb la mu dem ne bàyyi fàll nga rek boo gën a demee booy jàng tasaare boobu julli gi bu mu tax ngay bàyyi mu nekk. julli mënuma ko. dama koy ñëwatu bañ a def waaye mënuma ko. non non non. dëgg yàlla mënumaa julli mënumaa julli mënumaa jàll. mooy xam naa da jàpp ni dama mën. Eh, jàpp di jàppaat looy jàpp. xas ba jàpp xas ba jàpp jàpp nga. yow li nga jàpp mooy li ñu mën a jàpp. te yaa ngi ci yow sël ma ko. waaye si loolu. yenn saa yi damay reer. ndax yenn saa yi balaa jàpp ne yegg damay reer des fois dama kenn bu wër jàpp. da nga war mel ni mel ni ci yàlla. di tali fàtte la par ay par ay. waaye tànk ne joor bi ma fa eggee moom jërëjëf Serigne Touba ci ñoom. moom ci dara dara dara moom nag moo wax ni chakrtu rabbiya hmm. wa rabbiya chakr kulliyat yi la wax na waxul man rek sama lépp bi ma sante sama borom yi moom dafa sant sama lépp te wax in da jun bi yi zakara daf te ay soldaaram foofu la ko wax hmm. chakrtu rabbiya wa rabbiya chakr yi bi ma ko santee sama borom moom it dafa sant sama lépp ñëw daf maa sant waaw te ca ay malaakaam foofu la ko waxee ay soldat kon it jun bi yii zakkar la moo tax ñun daal nan nan nan peut-être baaxee nu comprendre nan comprendre rek xam nga boo comprendre rek moom kenn mënu laa dugal ci nag compréhension lu am solo la waaye waaye nag day cëru yàlla jox ko ñëpp dégg yéeg xam ak yéeg ay cër la nit ne toll na nu ne dafa am lu bari day am cër bi ñëppay xam bi ñëppay yëg nag bu yëg dee jeex mooy yëg ko kii bi jale yi te leen rek a jale yëg bi sëriñ bi réew mi nag daa dafa naqari àddina naqari hmm. waaye nit noonu la mas a demee ndax bu fi mas a ñëw bi dee benn nañ ci fi indi ñëpp it weddi nañ hmm. weddi gi ñu ko weggee tax mu seet si hmm. Hmm. seen pénc bi tey benn la. waaw. ñu ngi dégg pénc bi yàlla. xam nga àjjana gis nga àjjana baat bi arabisant bi Ahmed Saloum mi xam na ne àjjana jardin mais ban jardin ban. bu dee aljinaan pluriellement ay jardin hmm. mais yan jardin yi bokkuñu.